waaw Nogay Mbaye noo def alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi fi ñu ngi ci jàmm bu baax kay ah Binta mi ngi fi rek mo yow daal na ko bàyyee woon rek moom la fi nii ba léegi ah moom moom waaw waaw alhamdulilah kay la ilaha illallah tey rek tey rek am na benn am na benn jàkkaarloo bu muy tëgg fii ci koñ bi fii waaw Kër Secka en nag en face waaw waaw kay waaw kay fi den ak atelier bi waaw foofu la moom moom mooy tëgg foofu tey <laughs> waaw xam naa ne kay moom <laughs> bilaay yow bilaay sa bopp a ngi moom kay nogoy dama bëgg rek nga dalal sa xel te xam ni lépp loo doon occupé fii ci kër gi incha allahu rabbi ah je m'en occupe allah waaw kay waaw léegi pataas mbaay ñëw na <laughs> pataas mbaay ñëw na billaay kër gaa ngi wàcc ngëwél a ngi dund waaw Idrissa tamit mi ngi góorgóorlu waaw mi ngi góorgóorlu waaye wax dëgg neex yàlla kenn du pataas mbaay de sama rakk ji seetaanut moom moo benn yoon mi ngi koy teg ci axe incha allahu rab mais ah, ah, xaaral xaaral xaaral xaaral na xam nga la laay nag yaa ngi dégg yaa ngi bëgg a yàgg nag yaa ngi bëgg a yàgg mais nag wuy ma ñibbisil nag ñibbisil doom ndeyam da caa ndax bu koy nàmpal da koy xool loolu yaa ma ko gën a xam ñibbisil ah, ah kii na koy ma baal ma sama crédit mi ngi jeex te te te junior dama ko bëgg a woo dégg nga waa incha allahu rabbi déedéet mun nga ma ko vocal rek waaw baax na waa baax na waa jërëjëf jërëjëf merci ah de crédit moom dafay jàpp nit pour moom la hmm? te ligne bi depuis démb laa ko duggoon te léegi mu jeex ka man portable bii nii ci boppam laa comprendreul man iPhone laa xam iPhone iPhone bii lii kaa xam bii Euh, yéen ñaar ñi maa leen woolu woon. ba jàmm. waaw jàmm la du jàmm déglu rek boo dégloo di nga dégg euh, siiw nag du jàmmi boroom loolu la yàlla dogal yow bi nga ñëwee fii di déclarer amour Momo laa ne ko ni na la jël loolu moom ci sama responsabilité laa ko teg. Mhm. laa ne Momo jëlal xale bi parce que. boo nekkee star nga am staff bu bu bu bu baax daf lay encadrer su ma ci gisoon inconvénient du la jël mais nag yàlla dafa dogal nii li ñuy wax siiw du jàmmi borom te Momo dafa nekk ci yoon bugguma lu ko yàqal. yow euh, bu ñu delloo ginnaaw tuuti fekkoon naa la fële yow ak sa ñaari xarit ak Momo. waaw waaw yow la moo tax xàmmee naa la. xam ne naa la yow coow li lu muy rëy rëy rëy rëy rëy yow la nekk star nag yomb na yombul man ba may toll ci âge bi ma moo tolloon seeni ndey ñoo ma toppoon yéen waaw waaw waaw waaw waaw waaw seeni ndey ma toppoon ngeen ñuy mel ni weñ bu gis mango kon tey bu ngeen toppee moomoo kon tey bu ngeen toppee moomoo def nga la leen war def nga la leen war léegi nag gannaaw ba yow intérêt nga toppee woon moomoo waaw kii intérêt la ko toppee woon yéen ñaar ngeen di xuloo di xeex tiraillement di am kii mooy génn ak kii mooy génn ak moomoo man maa gën a nopp moomoo man maa gën a nopp moomoo léegi nag yéen ñaar ñëpp laay waxal li may wax nii dama bëgg ngeen déglu ma attentivement moomoo nekkul kerem bal bastik hmm. ba ku màcc jox sa morom mu taxamtiku nay leer. si dem Mali laa ko tegoon <laughs> ah ok <laughs> ok mu moo nag moom fruit yëpp benn fruit rek ko ci gën a neex muy bañ a dugub même bu amul suukar sax da koy <laughs> waaw waaw bu amul suukar sax da koy waaw voilà kay comme a dugub ku la xool xool moom moo xam ne yaay baayam yow mii. du si léegi nag werante bi xëccoo bi tiraillement bi jaratu waaw yéen daal xool leen daal ku gën a bëgg ma moo ma bàyyi kaag moom mu doxaananteeg moom. gis nga man comme sa doom nu ma ko doon arrangé <laughs> ay waay ak réeré mbir naa la benn affaire de lu tuuti te bariwul du jow nag yóbbante la bu sa doom ñee nga waxu ko ndax ku xool xam ne yow téewoo sa gémmiñ sa gémmiñ bi comme balteng say piip di pont bu ñëwee nekko tànn ko tu daal teex ju ban lay mujjee moomoo dama koo bëgg piir nag te ñëw ba ci man nëbbu ma ko laaj ma lu gën a ban moo gën a bon kuy nëbb di saaf kuy nëbb nit ki di saaf ok em père man doxew ma noonu sax ok moomoo dama koo bëgg tippoo ko te bu ma la nee par force day cëpp hmm. maa la ko wax day cëpp ok bàyyi nga ne yow doo laal da ngaa neex laal piir gis nga bàyyi moo <laughs> mhm. ay xam nga moo dama koo bëgg xam nga moomoo laa koy woowee mhm. déggal loolu man ak moom ba Firdaws yow da ngaa neex. Paradise la waaw waaw waaw. yow xanaa yëgoo ni man sama yaay ak Yacine Bouba ñoo doon ànd xam nga ne kon man damaa war a yàgg doom. Ah. man du ma sa morom gis na man fi may féexloo. waaw booy féexloo di gaañ bi ñibbi ca léegi gàtt ya gis nga moom lu mu bëgg man dinaa ko defal muy sañse. waaw lii jëm ci yéreem yëpp man mu naa ko defal. artiste da koy soxla yow mii xam nga yow da ngaa woo ma jëlal la <laughs> waaw ndax yow lan la ngoo. <laughs> waaw waaw waaw waaw naanoo bébé la. ok xam nga ne kon kii du ma moroomam. ok kii du man du moom xam nga comme du moroomu neem. Mhm. Mhm. kii maa ngi moom boo kii mel ni góor jigéen la ko moo doyee. <laughs> ok xam nga dëgg nag papa ji. ok <laughs> ah nan de. léegi nag lenn laa leen di xamal. téeseeku waaw waaw waaw ok téeseeku lenn laa leen di xamal enfant de la rue bi dangaa ripañ a ripañ ba sa tëstal yooyu nekk sa tës sa bopp bi waaw ok ñàkk classe léegi lenn laa leen di xamal muy muy xew bi am fii ngoon moom moo def fay tëgg ambiance bi sax commencé na ambiance bi commencé na ku fa dem ku fa dem ku fa dem di defante ji billahi bàyyi ngeen xewoon na mel ni mag su dof ak ah. yow bi carton bi ndax damay dem penalty sax bii lañ ko ci ana neex ku fa dem di defante ma xalu pont lay doon waaw boo fay dëgg di gaañu. kenn du du yàq sama réputation doom tax maa yow duñu mën a na ne dama ko yóbbu talikara ko andi ginnaaw raay ay waaw tey nga tey nga xaa yóbbu si nag waxal de na mu mati dara Burkina Faso laay dund ak moomoo d'accord naa xam naa di ma ok damay dem yow ma ñu suñu jaamu lu may wax ak yow lii lii laa leen doon <laughs> doyee hôpital nga xam laa leen doon doyee yow amul yow sax da ngaa lii laa leen doy doon doon bu ngeen di xeex ngeen génn dem mais doy doy jógal jógal dem leen. kii de maa ngi moom fu ñu daje kii maa ngi moom du combat sax. waaw waaw waaw waaw wax góor jigéen nii. waaw waaw baax na waaw baax na waaw. moom moom am na bayre léegi de. waaye nag li ma ko sangee moo foor wëralu ko guy gi samp ko moomoo dama ko samp waaw artiste planétaire. Patas kontaan naa ci yow bu baax. ndeysaan ndax jigéen di woo ma benn yoon. bi nga dugg si si kër gi ba léegi. programme bi dafa mel ni. tux sa bënn saañ ba réer chaque jour programme. lay waaye nag tey ki ñuy fekki dafa di mbër. mooy kan mooy Modou Gueye. borom impôt et domaine. laa ilaaha laa monsieur le maire Djidah Thiaroye Kaw. waaw moom la ñuy fekki tey kooku xanaa moom moom moom moom moom moom moom ak a gaaw. kooku du xalaat kooku laa soxla bu lay may du xalaat tey nag balaa ñoo dem damaa bëgg ñu créer benn bàkk bu bés tàq bu am doole waaw loolu du problème waaw waaye bi ma am démb nelawu ma ah. mooy bii baa comme que dafa am loo ma waxoon ci moom ah. ne ma naa ko testé maa mun a génnee talaam mm. delluwaat naa ko yaa mun a génnee talaam ah cam déedéet bii baa laa woo fi bàkk ko bàkk bu tooy xep mm-hmm. bii baa naan ma ndekete bés dama fi demoon Tambacounda ma xamal ko ne ko nag nag ci kàttanu yàlla suba ak jàmm boo gontu jëw horaire bi tamit bu sa papa ñëwee di nga jëw horaire bi dem waxoon naa la lool newoon naa la kii aar moo nekkul ci moom dara daraay njëwel nekku ci moom comme doomi bambara rek dafa safadi ah dafa safadi de ah léegi nag Modou Gueye nag moom xam naa dañ koy jéem wutal bàkk wax mbàkk bu sew waa waa waaw waaw xanaa ñoo ko Modou Gueye yaa fi njëkk a defal seet seetal wëlbati kuy bégal gone yi sax tay ñu naan gis rada dagin gis taj groupe na dagin taj taj góos góos góos góos góos waaw waaw kooku kooku bu ñu ko joxee Modou Gueye loolu day fees dell gin dam dam da gin gis taj gurur gin dam da gin gis taj taj ma gis gis gis gis gis